kureel gi xeex fitna yi ñuy teg jigéen ñi du comité de lutte contre les violences faites aux femmes ñoo amaloon ab ndaje ngir ñaax jigéen ñi ci lépp lu jëm ci xaral yees yi indi tey li tax tey atelier bi euh, ñu organiser ko jëmale ko ci euh, wàllu métital bi ñuy métital jigéen ñi mais ci ñu teg ko ci wàll xarale bu ngeen gisee année yi yëpp numérique bi dafa dugg ci suñu suñu ay euh, maanaam quotidien xaw ma nu mu koy waxee ci olof euh, ci suñuy dundin ba pare euh, préparé wu ñu woon cible boobu noonu pour ñu mun a xam naka la ñuy utiliser numérique boobu noonu muy ci wàllu jigéen ñi ci wàllu ndaw ñi jigéen ñi pour ñu wax leen yoon ba nga xam ne moo leen di permettre ñu bañ a dugg ci tooxi doona ci wàllum internet moo waral tey ñu ne baraa ñuy def euh, une campagne de sensibilisation membres yi nga xam ne ñoo nekk ci comité bi ñu ñu ñaax leen maanaam renforcer seen ay capacité encadre leen pour pouvoir outiller leen nga xam ne liggéey bi nga xam ne moo war ca seen gox yeeg seen gox goxaan yi ñu mun ko def ndax ñoom ñu ngi représenté ay région fii euh, ci formation bi. ponk bu am solo bu ñu waxtaanee itam ci boobilee ndaje mu dem ci wàllu hygiène numérique muy wane rek ana naka la jëfandikoo li nga xamante ni moom moo di xarala yu yees yi. hygiène bi dafa nekk loo xam ne mooy tax tey. képp koo xam ne yaa ngi naviguer ci internet nga mun a xam naka nga cay duggee ak fan ngay dugg ak yan jumtukaay ngay utiliser ko dugg fan. parce que internet dafa am partie bu leer am partie bu lëndëm. su fekkee ne outillé nañ dina permettre femmes yi tey ñu mën a xam non seulement naka la ñuy jëfandikoo internet boobu nan naka lañ ko mun a jëriñoo euh, ci seen wàllu liggéey ak seen wàllu doxalin ak seen wàllu dundin. moo tax hygiène numérique bi mu am solo ci wàllu jigéen ñi ndax bëri na jigéen ñoo xam ne tey dañoo nekk ay victimes mu net. Euh, ci loo xam ne dañ koy séddale maanaam wala dañ koy wasaare ci internet bi te du loo xam ne lu lu waroon a am la. ñu mu indi leen ci ay jafe-jafe yu bari donc baax na tey ñu ñu ñu sensibiliser leen ci loolu nga xam ne ñu ngi koy def bés bu nekk même ci suñu wàllu doom yi sax dangay gis ko photo doomam dugal ci internet wala def ko statut wala dara te loolu ay données personnelles la yoo xam ne nit ki moo ko moomal boppam te baax na jigéen ñi xam ne loolu euh, vraiment lu lu lu lu jaaduwul la lu ñu war a bàyyi xel la ndax ëllëg si biir xale bi dafay màgg te bu boobaa mën na ko indil yeneen jafe-jafe. ngir xeex ñaawteef yi ñu teg jigéen ñi jaare ko ci xarala yu yees yi bile kuréel itam fas yéene nañoo teg ab plateforme ngir jaare fa seenu xeex waaye itam daal di lëkkale seeni doole ak yeneen i organisation xool naka le comité de lutte bi di amee plateforme de signalement parce que baax na tey ñi nga xam ne ñoo nekk victime. au moins ñu xam naka la ñuy fan la ñuy jaar ba loolu ñu mun leen ñu leen a jël en charge. Euh, beneen bi mooy naka la ñuy lëkkaloo entre organisation pour mun a liggéeyandoor pour mun a jël en charge euh, cas yooyu ndax tey amul benn organisation boo xam ne war na mun a taxaw ne man kese war naa mun a jël les victimes de violence mais ñu am une une une prise en charge maanaam jël victime yi de manière holistique maanaam ku ci nekk la fa nga fa nga fa nga fa ngay fa ngay euh, fa nga mënee nga teg ko pour mun a jël en charge correctement euh, victime bi nga xam ne moom moo ñëw yegsi ci ñun en tant que euh, organisation. juróom-ñaari fukk yi jigéen ci téeméer boo jël dañuy xëy di jëfandikoo saa su nekk lii di internet donte ni xamuñu ana fan la seeni données personnelles di mujj waral léeg-léeg ñu ciy jànkonteel ay jafe-jafe li lay tax ba kuréel gi di CLVF daal di taxaw temm ngir ñaax askan wi ci li ni mel.